asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu barakaatuhu mbokki groupe daara mag ñi ñu ngi leen nuyu di leen ziyaare eh, laaj bii nag mi ngi jóge ci benn kilifa gu nekk ci bu ci groupe bi xam naa ci page am laa sax waaye dafay naa ko ci groupe bi bu ko defee ñeneen jëriñuwaale ci parce la boo xam ne yàgg naa cee wax eh, pour nuñ ko mën a tasaaree rek maanaam jigéen joo xam ne si dafa nekk ci buumu sëyam di sëy ak jëkkëram benn waay jóge ci àll ba ñëw njaaloog moom bu ci doom juddoo ñun dañoo waxoon ni doom ja doomu jëkkëram la ndax yonente bi wax ni al waladu lil firaashi wa lil aahiri doom ji jëkkëru ndaw si moo ko moom ka njaaloog jabaru jàmbur nag benn ci ñaari la benn amul lu dul aw doj maanaam amul dara walla dañ koy sànni ay xeet ba mu dee maanaam daal yeneen dafa bëgg wax ni borom jëkkër ji borom jabar ji jëkkëru ndaw si moo moom doom ji parce que moo am ab toolam ñàkk ko benn waay jóge ci àll ba ñëw ji ci toolu jàmbur képp ku ji sa tooba ci toolu jàmbur nag meññeef ma borooma ko moom kon jigéen bu nekk ci buumu sëyam sëy bu lew lu mu jur rek doomu jëkkëram te buñ naan doomu jëkkëram moom lay donnanteel doomu jëkkëram jooju lay donnanteel doom la doomam la kilifa gi leen dafa dégg ci benn xaadi wala bokk benn waxtaankat mu ni kooka eh, maanaam maanaam ku koo xam dafa njaalool jabaru jaam ba am ca doom kam njaalool lay donnanteel nit bu fekkee nit bu eh, góor ku mu jur te te tekk ko tekku yaayam kooku ak kum mën a doon du doonanteeg moom ci lislaam jàppewu ko sax ni moom mooy bàyyi bi waaw kon lañ leen waxoon moom moo nekk ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kilifa gi nag li mu dégg loolu amul fenn mooy liñ doon wax rek xam naa bokk na ci yi ñuy dajale pour buñ demee ca plateau télévision bi gën koo réel koo leeral te ñu moytu ni ko di gàggantiku ci mbedd gàggantiku ci mbedd mooy ci réseaux sociaux yi wala ci télévision yi wala ci YouTube bi lu dul nga xam ni kay wax ci télévision ba bu jàkkaarloo woon ak yow it bu la waxee nga gëm ko day daje ci télé bi rek wala kay wax ci YouTube ba boo jàkkaarloo woon ak moom xam nga ko xam ngoo xam ne si bu la waxee nga gëm ko kooku bu defee bu demee ci réseaux sociaux dafa laa gën a dimbale mais benn waay yu bu ngoo xam ne si xamoo ko xamaanoo ko ana yow ana moom ngeen daje ci réseaux sociaux yi mu jox la benn àtte loolu boo ko jëfandikoo yaa ngi jàggandiku ci mbedd kon ñi waxaat ni jigéen ju nekk ci buumam di sëy lu mu jur moo xam jëkkëram a ko jur wala beneen waay moo jóge ci àll ba ñëw ëmbal ko loola bu amee eh, xale ba jëkkëru ndaw si lay donnanteel kooku la lislaam jàpp ni moom mooy bàyyam ka ca nag amul dara loolu waxoon jàngaloon nañ leen ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi diggante eh, Euh, Saadu bin Abi doomam ja ak càmmiñal maanaam euh, Sawda soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis boobu jàngaloon nañ ñu ma indi leen ci benn beneen beneen nag pour misaal pour misaal leen masala mi euh, misaal bi ma leen di jox mooy benn waay boo xam ne dafa njaaloog benn jigéen am ceeg moom doom bu góor ba ñu ngéntee ba pare ñu may ko ko ñu may ko ndaw si mu jaalool mu an mu jël ko moog doom ji indi ci këram waaw ah, indi ci këram eh, ñu dem ba jëmmi jamono ñu fay ko boroom benn waay jóge ci àll ba njaaloo jabaram ji ba am ci doom ju góor kon ñaari doom yu góor a ngi nii yoo xam ni kenn ku ci nekk ci njaaloo nga judde juddoo kër gi ñett ñu defe ne borom kër gi ak ñaari doom yu góor kenn ki jabaram ñaari jabaram a ko jur mais kenn ki moom moo ko am ak jabar ji hors mariage xale bu góor bi ci des nag keneen moo ko am ak jabaram ci biir mariage bi waa ji faatu bu waa ji faatoo doom ji jabar ji am ci biir mariage bi kooku moom moo koy donn kee nga xam ne si moom waa ji faatu moo ko jur mais or mariage la kooku du du du donn waaw maanaam waa ji génn àddina ñaari xale yu góor yi la bàyyi jabaram a jur ñaari doom yu góor doom yu góor yu jabaram jur ki nga xam ne si deretam la du ko donn ki lu deretam donn ko ki ki nga xam si deretam la ca du ko donn lu tax du ko donn parce que or mariage la ko amee donte deretam ki nga xam du deretam ca moom moo koy donn du deretam mais nag ci biir mariage xam ci biir la ko jabaram amee waaw kon kee nga xam si ndaw si jur na ko hors mariage du donn du donn euh, jëkkër ji kii nga xam ne si rek ci biir mariage yi la ko daka ndaw si amee day donn euh, day donn jëkkër ji waaw boobu misaal lañ leen ci doon jox ñaan yàlla may yu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waa mbokk yi lii tim beneen masala bi may tontu masala bee la sama téléphone sonné beneen kilifa moo ma laaj lii lii nag lu ñuy dund la ci jamono jii li ñuy dund la benn imaam boo xam ni ki doon wax ak man ma xam ko xam na imaam ba mooy seen ilimaan euh, dafa am seen benn xarit maanaam kenn ci maamu mi kenn ci maamu yi maamu yi boo xam ne si jabaram ilimaan ji xam na ko ilimaan yi xam na jabaram benn bis mu wax ak benn bis mu doon waxtaan ak ndaw si jabaru kenn ci maamu mi ni ko man daal dama lay sentir dama lay sentir sama yaram ci boppam dalaa laaj proposé ko damaa bëggoon ñu ànd maanaam daal proposé ko njaalo imaam ratib bi xam ni mooy jiite jumaa ji jiite julli juróom yëpp muy proposé njaaloo ak jabaru kenn ci maamoom yi eh, ndaw sa non seulement mu ba dafa bañ daf ko vilipande dem wax ko waa këram wax ko jëkkëram ba pare tegal ko ay audio daf ko ay audio yu bare xas ko ci ni ko nag xam naa ni lii a la bañal barewul ñu la ko ñu la ko bañal boo demee am na ñeneen ñu la ko nangul waaw xas na ko ba mu kii wax ak man nag am na ci lu ko leer parce que da koo dund muy laaj nag ñoom dañ ni nan la def ak imam bi ndax mën nañoo judd ci gannaawam wala déet maanaam li ma wax nii lu ñuy dund la fi ñu toll nii damaa dem bay kàbbar julli téléphone bi sori mu ni ma daal lii dafa urgent kon moom ña ngay toog xaar euh, ilimaan jooja xam nga dafa am ñaari façon kàccoor mu am dafa am fisq bil jaariha ak fisq bil i'tiqaad dafa am kàccooru jëf ak kàccooru xel ki nga xam si dafa am kàccooru jaariha maanaam ilimaan buy naan sàngara ilimaan buy njaalo ilimaan buy sàcc ilimaan buy fen ilimaan buy jëw ilimaan buy rambaaj xam nga yëpp ay melokaan yu bon la waaye ilimaan jamono bi muy jiite nit ñi mandiwul te jàpp na jàpp mu set xam na bu julli gi yàqoon luñ koy defare Eh, jamono ji muy jiite njaaloowul bu fekkente ni njaaloo na avant muy ñëw ci jàkka ji bi mu jëlee jiitee tisbaar ba pare avant muy jiite ci tàkkusaan njaalo na fi mais sangu na sangu farata ba set wecc ba bi muy dugg ci jàkk ji mi ngi ànd ak laab mu am mokkal faatiha mu tari mën a defar julli gi kooku bu la jiitee am nga julli parce que kàccoor gi mu kàccoore laalul julli gi waaye dañ ni kooku kenn ko def mu nekk imam ratib waaye nag mu am leneen man Mouhamed Lamine Sall loolu laa tontu kilifa gi ma ne ko man day kooku duma ma jiite parce que bu ma jiitee duma am julli sama xel mépp ci mbon ak caay-caay gi mu def mbon gi ak caay-caay gi moo tax duma mën a ma mën a jiite tey faasiq bil jaariha am na ay borom xam-xam yu wax ni bu la jiitee sa julli yàqu na waaye ñooñu dañuy jaawale fisq bi di itiqaad ak fisq bi di jaariha maanaam ku mel ne ku mel ne ne Umar Sall Umar Sall nga xam ni fisq bi li itiqaad la am ku jiite amuloo julli parce que am na ci aqidaam nit yàlla kum bañ bañ na nit yàlla bañ gu wér ba nëbbu ci dara kooku kàccooram googu maanaam buy buy julli ma nga ànd ak moom buy nelaw ma nga ànd ak moom buy dox ma nga ànd moom kooku ku mu jiite amuloo julli parce que faasiqun itiqaadiyan amma fisq bil jaariha nag koo xam dafa kàccoore kàccooru jëf day naan sàngara mais jamono yi muy jiite nit ñi màndiwul te ah euh, sarti julli yëpp daje na ci koo xam ne day njaalo mais jamono yi muy jiite njaalawul sart julli yëpp daje na ci moom kooku bu la jiitee am nga julli mais sip nañ ñu di ko def mu nekk imam ratib waaye man ñii day man bu fekkente ni fekke naa ko ji juddi googu du ci duma ma ci euh, ci julli ànd ak nag kum julli am kum jiite am nga julli waaw léegi nag li ma wax kilifa gi dama ni ko jàkk ji ci boppam nañ def seen réunion def seen assemblée folli ko parce que ku mel nii day tilimal jarul lislaam tilimal jarul lislaam waaw jigéen jabaru jàmbur nga di ko proposé nga xam ne bu meloon na yow yow lislaam dafa laa raylu waaw loolu loolu lañ lañ doon euh, tontu lañ ko wax nañ ko waaye dafa damañ rek dañ ko dugal ci daal yi mag pour ñu ne xam ne ko xam ko ñaan yàlla mu ngi dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ma am benn leeral bu may leeral tim euh, balaa kenn gis wuute bi am ci imaamatul fasiq koo xam ni fasiqun bi bil jaariha koo xam ni ak kàccoorem ci jëf la lu muy jëf la waaw li ëpp ci borom xam-xam yi dañ ni maanaam bu jiitee julli ga baax na waaye sib nañ muy nekk imaamu raatib ndax Abdullah ibnu Omar ibnu Omar ibnu Xataab Abdullah ibnu Omar ibnu ibnu Xataab julli na ci gannaaw Xajjaaj ibnu Yuusuf Hajjaaj ibnu Yuusuf nga xam ni li mu rey ci ay nit kenn xamul lu mu toll Abdullah ibnu nag mi nga xam ni saxaabi la comme julli na ci gannaaw euh, Hajjaaj ibnu Yuusuf yaakaar naa kàccooru imaam bii ñu ma doon wax àggu ci Hajjaaj ibnu Yuusuf Hajjaaj moom euh, danaan toog ba si yàgg rek mbooloo mi bari mu daal yaa ah, bopp yi day yaakaar naa ñor na de bopp yi ñor na ci wattu ko jot na seet leen lii maanaam bopp yi may seen ñi day war naa ñor wattu ko jot na maanaam euh, pour dagg bopp nit jot na waaw comme nag jul euh, Abdullah ibn Umar jul ci gannaaw Hajjaaj ibn Yusuf loolu tax lu bari ci borom xam-xam yi ni imaamatul fasiq fisqan fisq bi jaariha bu fekkente ni jamono yi muy jiite ànd àndul ak kàccoor googee boo mën naa jiite amaa nag euh, kàccooru ab nit yàlla nga noonoo ko bañ ko kooku bu boobaa faasiqun bil itiqaad kooku mënut a jiite kenn